waaye léegi kuy jógee kom booy ñëw yaa ngi jaay tamaate jaay si sa batañ sa jaay sa kees ga nga indeeg mbàttu yaag leket gaag carton baa ko indee ba fii jaay bem jar nga sànni ko fi dem xam nga àdduna bi nga gis nii dara warul jamono tey ji jafe gisin yee ute gisin yee ute de toppandooru yàqa dem dafa sori ñu gis luñ gisu doon dal di mel nuñ melu doon ñëw ak yeneen di xalaat pax mi <coughs> waraay waruloo def dara ci pax mi tous bàyyi ndox mi mu daw rek ñun dañ naan football ci biir pax mi football ci biir pax mi wallahi nawet rek laa tooy noor mu wow koŋ pax mi nawet rek la pax yi di tooy waaye noor dafa wow koŋ ñu jee football mbalit déedéet léegi nag ah njàng mi yokku na njàng mi yokku na xam-xam bi yaatu na waaye tant que ay tekkeeku na tukki bari gisin ute ñu wëñeeku na nekkay leneen ñu nekk leneen doomi Adama dafa am secret secretam toujours rek moom moo ko samal boppam xam nga war sàq ak wóor sàkk wóor sàkk mooy ñiy xëy di débëri yi di góorgóorlu ngay wëri pour sàkkaloo waale war sàq mooy ki jagle ba pare moom dafa eew rek toog ci mbir yi sàq mi yaa ngi toog ci sàq mi mooy war sàq war sàq kale moom foog mu dem débëri ji ndax mu mun a am dara wóor pour sàkk olof dafa yaatu de waaye nag ki indi mbalit mi su ko delloo woon ca bam jëriñoo bam indee mbalit mi ba pare bi mu jaayee batañse bi jaay kaani gi jaay tamaate jaay yëpp buy dellu yóbboole sàkku ba mu ko indee woon bon mbalit du fi des du noonu ki daaji pot bi mu jënd ci ma ci naar bi naan meew bi sànni ko ci mbedd mi su xamoon ne nag waru ko faa sànni daf ko war a delloo ji ci paan ba ko jëndee mbali du am wala ki naan kafe be pare sànni ko nga naan kafe nga naan kafe ba pare sànni pot bi ci biir kër gi sànni pot bi ci wanag wi sànni pot bi kale ñëw tebee ko ca wanag wa jàllale ko ñaw na de bon xel du bari te li ëpp ci xel mooy nit ki xelu nit ki xelu lañ ko xelil mooy lam fekk ca muy lu baax ca bam fam dem dëkku fa woon waaye bam fa àggee xelil nañ ko ci xelam mi mu yëg ne nangam mooy doxini fii walla nangam mooy waxini fii muy waxee ca waxin ya di defee ca defin ya du fa indi dara luy gan tey yàq kooku mooy kooku kooku gan la gànga bi nag mooy ki nga xam ne la ko neex rek ak na ko neexee rek du def lu baax du wax lu baax lu fekk yàq ko lépp lu amut soxla rek yoonam nekku ca def ko tasaare kooku gànga la waaye ñu ne ku mus da du xam dalal gan déedéet ku mus da du xam dalal gan Ablaay dëkk bi tilimul nit ñee tilim waaye dëkk bi tilimul de ku nekk la nga fekkoon su fekk da nga ko bàyyi woon wala nga maintenir ko na ko fekkee woon booy dem bàyyi ko ca na nga ko fekkee woon bon tilim du am ba ngaa ñëw dafa am loo indiwaale waaw ba nga sa soxla fajoo yóbbuwaale ko ngir yàlla waaye dañ ko fa bàyyi mu collecte dost dafa collecte dost léegi mbedd mi foo taxaw semaine bu njëkk boo semaine ci mbedd ñu jàppala taxaw ci mbedd semaine public nuisance la dañ laa jàppa bu njëkk doo taxaw ci mbedd bi di yuxu yooyu woo woo di dem dee dañ laa téye xam nga dof bee kaaje bi te tane wante wuñ lool ñu ne diw dafa dof ñu ne dee ñu dafa kaaje tane wante wuñ lool de parce que kenn ci ñoom du wax lu am fayda dof bee kaaje bee am olof dafa baax rek bala moo wax ne dof na nga sànni si tubi waaye dafa doyee dégg dafa kaajeeg bu xat laa gi ne dañ laa isil bala nga bañ loon ne dof kera buñ ne dof na nag sànni na tubé ji waaye dëkk bi tilimul de ñun fekkuñ ko bale sa bunti kër ma bale suma bunti kër ñu an ku nekk an yóbbu sa mbalit enu ca dos bin ba te boobu da ngaa fekki dos bin léegi da kontaan boor bu seet ay àllarba ak ay loo di moti dugg ci dëkk bi di di jël mbalit mi amay ah, friend nit ñee tilim nañ bàyyi bañul waay bañul tilimul nit ñee tilim dañ waroon a wax wax bi mu rafet ñi ko dëkkee dañ tilim waaw ñi ko dëkkee dañ tilim du waa bañul de dañ wax olof bi mu rafet ba ñun ñi ko dëkkee léegi dañ tilim noonu dañ ko war a waxee mu set waaye waa Banjul dañ tilim loolu amut parce que fekkuñ woon mu tilim fekkuñu woon mu tilim boo defee la ngay ñëw visité la ilaha illallah su mam duñ am jàmm ñun duñ am jàmm wax ron xurxuraan yeeg gannaaw paax meeg ganaaw bii néeg yeeg wanak yeeg waañ yeeg fépp foo xam ne ruxanaa dinañ ko bale bem set génne pot yaa paan ya enn ko sànni ji loolu amu amul ci kër gi bu njëkka buñ daan sampa néeg néeg fa la ñu yóbbu mbalit yi waaw pour sëkka ko bon mbalit amu fi woon Ablaye nañ waxante dëgg mbalit amu fi woon baa ñul tilimul ñi ko dëkkee tilim nañ waxtal wax ji ndax mu leer waa baa ñul tilim ñun xamuñ tilim xamul tilim bale ci biir kër jàllale ci ci ci tapaat loolu amu doon bàjjul musu fee am kenn xamu ko woon ci mbedd mi léegi nga taxaw di saw ci mbedd la ilaha illallah loolu amu fi woon ma ne dégg doo li wax de waxuma la loolu dama ne saw ci mbedd sa soo ko defoon ñu jàppa la ñu yu mel noonu duñ ko fi nangu dama loolu moo laa woon emphasis bi rek ne ñun dañ xeebu doon len liñ gëmoon mooy ni nga ko fekkee nga ko war a bàyyee waaw ni nga ko fekkee nu nga ko war a bàyyee danga ko fekka mu set fexeel ba bàyyi ko noonu ki nga lu nekk rek dee koo génnee dee ko génnee ca na ko fekkee rafetaay mbir mooy ca na ko fekkee même wax booy fekkee ñu ko wax sax fexeel ba dundal wax ja ca nang ko fekkee waaye fekka wax ju rafet nga yàq ko ko la gën bon amul bon wa Banjul waa Banjul tilimuñ ñi ko dëkkee tilim néeg yaa ngi daan wax ne kenn du ko dëkkee muy wanak yaa ngi daan am néeg lañ kama lañ ko daan def wala foo xam ne nii sanguwaay la woon léegi néeg yooyu néeg la parce que gan gu ñëw la rek bugg a néeg rek nga ko nekk ah, bii la maa ngi kër gi ñii mun nañ baa doon am na néeg bu fekk bu nekk fii amul nit yi ne pour man yooyu ko ma ne mukk man du fa dëkk ba du ma nangu nit dëkk fa parce que bu dama dama gëmul loolu fi ma nanguwul a dëkk man du ma fa dëkkal kenn loolu du yoon gannaaw man nanguwuma fa dëkka du ma fa dëkkal kenn munoon nañ ko luyaas ndax ñu am xaalis waaye ndax yaa ngi def li war warul Banjul tilimul de ñi ko dëkkee tilim baat bi dama ko bugg di dëgëral rek mm-hmm. Banjul réyul bi ma act as dem naa benn barab ci biir Banjul gannaaw Hopkinson dama fa géej waaye dama fa dem mu mel ni feneen la fii du Banjul te fu ma xamoon la wallahi gaa yi lay fóodu algupa yi ñoo fa nekk ci gannaaw loolu Bonafel biñ am ñoo am liggéeyi pour bàyyi office yi génn ci biti di visité nañ daan visité bu njëkka bon dinañ gis ñiy tilimal Banjul ndax buñ ko def feekukaay xaalis rek te defuñ li leen war su ma juumu dinaa ne ñu bare ngee feyeku riba la ñoo lekk de parce que du ñoo liggéey na mu waree du ñoo liggéey ni waree dañ la fay pour nga def nangam fexeel béyoo nangam googu nga def ko ndax soo feyee ko mu barke soo ko defut yaa ngi lekkaloo moomul man dama dem ci barab boobu gis na mel billahi lazi laa ilaha illa huwa ma ne xaw ma woon ne ruqa bi léegi fii ma xar suma tànk tubéy ne foog ñu liggéey ko bi ma actes mayo man jëlewuma ko on tour de ne maa ngi actes mayo rek déedéet doomi mi fi am taranga gune alhamdulillah rabbil alamin te yalla defal na ma loolu maa ngi ci sante suma borom sante ci suma wajuri ak ma xarit ak wa bañul yu bax yi nga xamne gem nañ ne ku bëgg ndam la be lo xamne dañ ci soxla ndam suñu ko am ci ndam te liggéey boobu le dama ko jël xaar ci suma tànk be gis ne ni ma bëggee woon ñu liggéeyee liggéey woon nañ noonu man defoon naa ko ba nga xam ne mbalit amatuloon ci kër yi dañoo nit ñi da ngaa génne waa dëkk bi ne mbalit mbalit mbalit pour ci ñun la mbalit mbalit doore bi ma actes mayor because dama ceeñoon système bi ñoo liggéeyee ba every time or every hour of eh, di naka di nga am ñuy war a bu mbalit instead of wa liggéey tri wàcca fo ay eight wàcca tri non dama ko ceeñ def ko ay ay ay shift shift work loolu yow daf naa ci biir council bi ñu bari na du possible ma dina possible man lu impossible mënuma koo gis Fek xal di tang koo xalaat rek warna naa possible man non lay gisé dé. boo man dama gomut eh, ci eh, eh, di di di nénal bir, man gëmu ma yooyu su ma benn joboot wax lolu. Suma ma jobot moma ci é lo xam-xam am ko la gëna xam sa dom sax amna lu xam lo xamut so foog ñuy wecciyante xam rek mu ne négativité amul alaaji Papa Mbaye maanaam mu ne ma bul nangu négativité amut lu ne lu nekk ñun négéta yi amut mu ne everything is positive jëlal sa wàlla ci wax ji jëlal sa ci mbir mi bàyyi fa da ca des dina am ku ko soxla ca kooka du négatif bon lan a lan lu nekk am na ku am soxla ca loola ka ca am soxla bu ci accès rek loolu du nekkati lu négatif bon everything is positive in this world besides nga nekk saasaay wala nga nekk xaj wala nga nekk nit ku doyadi ku amul dara ku xamul dara waaye fekk yangoon nang na yaa ngi nangoo nekk nit njaaye mu wóor la ne sa warugal ci àddina mooy nga jub mu wóor la ci àddina sa warugal mooy nga seet ne ne lii de wax dëgg yàlla du dëkkin bu baax nga bàyyi ko du waxin bu baax nga bàyyi ko fexe ba yàlla dimbale la nga bokk ci ñi ñoo ñi barkeel seen kàddu soo ko defee rek yaa rabbi di nga am li nga soxla mm-hmm. yàlla nag mooy barkeel fi mu nekk ñun li ñu war ci fi ñu toll mooy ñun laaj yàlla mu dolli ñu waaye defal nañu de bam la sàkkee nga doon nit rek mun na ko fe yàlla ba pare mu def la nga nekk ak jullit mun na fe yàlla loolu mu boole ci ummatu rasulillahi muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mun nga fe yàlla bon ñun kat ñoo leb yàlla wala góorgóorlu ñu ñaan yàlla ba tey mu jéggal ñu te barkeel suñu ut yi teggil ñu mbas mile doomi aadama dafa war a doylu ñaari baate ngi nii bo bu ci manqué rek beneen bi du baax doylu ak mandu soo mandu doo doylu soo doylu wuri doo mandu ñoom ñaara ànda bu ci rek dafa yóbbu moromam bon Banjul musta tilim góor gi Banjul boo ko musee gis Banjul ñi ko dëkkee ñoo tilim waaye ba waa Banjul tilimuñ xamuñ ko fekkuñ ko dañ fekkoon set fekk fi teraanga fekk fi yërmaange fekk fi sutura tey suturlu loolu lañ fekkoon fii wax naa ci jumaar ji ne biiri njaay Modou Ndiaye Biri bañ ko tuddee Biri Biri maa ngi toog Biri la woon de ñi naan Biri mbóot ak nangam nangam biiri la woon Biri ñu tuddee ko waaye Modou Ndiaye la tudda xam naa yaayam xam naa baayam yaayam di suma jigéen baax ci ñun lool Alaaji Aliou Mbodj mii jiitu nii bàyyi na Seynabu Mbodj yaayi Biri moom lañ ko tuddee mm-hmm. suma pa Aliou Mbodj mm-hmm. fii ci Perseverance number six dañ fa amoon compagnie bu ñu ooyee Youth Star ñun fa lañ daan toog foofu suñu bu biiri mi la ci suñ kanam la juddu ñoo ko mag fuuf biir yi ku musa dëgër la xale boo xam ne dafa foyi ak yarami neenam daw foyi ba xolam sedda ci lu gàtt rek dafa daw del si waat indi jël toogu teg ko o yaayam seen bu mbooj mu ne naam ne ko kaay ma nampa <laughs> ñoo toog mu nampa biir yi foog mu dëgër benn ñaareel ba biiri du football lañ ko moo ko barkeel déedéet biiri jikkoo ko barkeel jikko dafa am orma xam waru galam gëm yàlla nangu kilifaam xeebut baayam xeebut yaayam ñaxaam ak daawam yëpp ndeema baay baayam di dégg a wax nag gom ñu lool ñun ñii du yàq suma tur oncle la maa ooye tur bu yàggu nii doomam bu jigee dama seen ne suma papa ndeysaan du baax ne maa ngaa dem ca oncle Mbaye xam naa julleem digganteem ak boromam xam naa ko ci moom xam naa topp kilifaam xam naa ne ku bugg ndam la ku am orma la biir xamul beddeku xamul beddi nit ñaawut te lu mu am bokk ko nit ñi loolu ku ñemeñ dëgg rek mel noonu soo buggee xam biir njaay tigi seet ko ci am am ak jobootam jobootam waajuram kilam négam ak xame xameelam kooku mooy biir njaay kere bañ ko tuddee biri biri maa ngi toog biir daka man ñoom Babou Sow Badou Ndaw ñun ñu bare ñu ngi toog ñoom du Ndiaye Mbassa dañ demoon Utrecht ñoom ñuy dem final boobu taam ci team bi moom biiri ak kile Passamba Passamba Ingram woon ñoom ñëpp ñu ngi play ci biir fii bi ak senegal dat dee tri lañ tri tu lañ dóor maa ngi toog di ma la wax biri la m laki wala ko turam mo ne ko la tura mo muño insérof mu wax biri jaay em ci mo ne biri biri lolo indi biri biri bi wa biri jaay rek la won xale bu am am yerma ci wajuram dafa daan jógee bi si ci am flying time am rocc ko dem jeli, a jógee dem marché enul yaayam pañem bi yang yak nango yi mo fray pour jaay isi ko pasi beran lolu gis na ko ci mom ku am gor a ngoog ku am jàmma ngoog ku bëgg a waajuram a ngoog gërëm na waajuram xeebut leen wërsëgam nangu na ko bokk ak ñoo bokk ko jobootam waxuma la nag ñooñu rek ne dëkkandooram sax du leen bàyyi xam na Banjul gëm na Banjul biiri Gambian la te ku gëm na doomi doomi réew mi la amoon na cër bu jox réew mi njukkaal delloo réew mi njukkalam moo taxoon mu sonnoon ci lu bëri ba nekk na fi place boo wax nag tey ci teraanga def na ko nekk na ko biir Banjul dara waral ko lu mooy orma am jom gëm boppam looloo ko jox lool mu am place yooyu. kon mooy ki nga jii Banjul Muslim Elders yéeg nañ ne wallahi su jeer ñetti tànk la mhm. su la billahi bu ci benn manqué rek yël ba dënga te ñun tiit nañ Aliou ku baax a ngoog ku bugg a ndam bugg a alaaji bugg na alaaji bugg na islam man fekk naa ko ci Makka ñaata yoon ci armal eh, muy armal di umra ci biir Makka ñaata ñaata at bi maa dem Makka dem naa Makka lu ëpp fukki yoon man parce que aj naa ñetti yoon pare liggéey ci juróom-ñaari at bon dem dem Makka lu bari de te dem naa fekk ko ci suma njëlbéen dem maka fekk naa ko yoo xam ne dama daan fay yu ñee di ma ko fayal may dem foofa yàlla ma fa daan yóbbu mu waar ma nag ma doylu ne boo gisee yàlla di ma nattoo dem maka yi xaaral ma bàyyi yenn yi ma ne woon muy sabar gaag eh, naka eh, entertainment bi ma daan def ma bàyyi liggéey ba dig betel bu ma yàlla bette ñaari yoon may aji maka ci betteel ba ñëw en ma ci li muy liggéey ma ne eh, xaaral ma bàyyi bii loolu moom ma tiital xaaral ma ma fecc ma fecci eh, secret boobu ñuy xam ko loolu moo ma tiital ma bàyyi liggéey yooyu ma ne yàlla suma borom mu ngi ma nattu ci ay mbir xaaral ma bàyyi liggéey bi mhm. ma bàyyi liggéey boobu toog dellu rek liggéey bay non renforce may dem Makka nag at mu ne <laughs> at mu ne teglande ko juróom-ñetti at at mu ne ma dem Makka yaa rabbi yal nañu yàlla fayal yal nañu yàlla fayal El Hadj Aliou Mbodj <coughs> ma nekk amoon ci Banjul Muslim Elders secte la fa woon de from secte mu nekk ba ba after mu nekk chairman waaye balaa loolu Aliou ko amoon orma la am kóllëre digganteem ak saraxule yi ci biir community saraxule yi ci biir Banjul gii Aliou ku ci nekk ci ñoom ay mbiram di diggante jëflante Aliou ak ñoom la woon te mosul ñoo dégg ñu àtte leen mm-hmm. man de mosuma dégg ñu àtte leen de ba pare nekk na fi ci ay place yu bari Port Authority mm-hmm. eh, NTC to name a few aliunde karachi aliubugana ndam nongola mota ndongo aliundongola aliundongola ndongo ko am jamangoko te diggante bim saaf chairmani Banjul Muslim Elders gis nga lam fa def ku nekk ci ñun li la eebu yóbbu Banjul Muslim Elders mooy sa taxawaay ci islam ak sa taxawaay ci réew mi du xarit yaa rek de mu ñu tànn la déedéet dafa am noo mel ci islam bi te waajur yi comité boobu bu yàggul maa ngi ko wax ci gàmmo gii comité boobu du daan passé juróom-ñeneenti nit de ca suñ maam yaa suñ papa yaa jaan daan passé loolu de fayda gu muslim elda si amoon moo sampa eh, eh, Mohammedan school bi in 1902 loolu yëpp jot nañ ko ci kilifa yi waaw biñ ne xale yi foog ñu jàngi school fu leen kala ne di yóbbu school ñu ne méthodiste Eh, eh, missionnaire bi ak catholique missionnaire bi suñ paa yi am ñu dër bokka na ci maam tam ci Birane Diouf ne seen doom yi duñ dugg ci eh, kat yooyu dañ leen a tax ñu murti ëllëg nekkee ay gourmet mu indi réeroo diggante suñ paa yi ak nguur gi nguuri tubaab bi ñu woon jamono jooju ndeysaan faydaa leen tax be gannaaw gi juboo am na ci de waaye gi lépp loo xam ne luwaa la bu ñoo def ci biir réew mi dinañ consult wala dinañ yëgoo suñ paa yooyu di fayda yooyu ana fayda googu tey ñun ñoo ko doon de waaye ndax ñu ngi ñu ngi mën a def la ñoo daan def ñun war nañoo seetaat suñu bopp bu baax mbir mi du alal ju bari du taar déedéet du du bari waxit de dafa am fooy war a noo war a mel dafa war a am noo war a mel ak foo war a em ndax nga mun a toog ce yooyu du politique de déedéet Banjul muslim elder paa yi duñ daan passé ñoom juróom ñeneen te ñu doylu woon lañ am kóllëre xam seen boppa lépp lu yëngatuwaan ñu dox ko wax ko mu sotti te doo te du ñaaw loolu woon Banjul loolu moo woon Banjul te comité boobu bala nga ca daan toog foog nga am juróom-ñaar fukki at seventy years bala nga faa nekk li indi eh, présidence bi ñu def ba maam suma papa Abdou Karim Senghor ak suma papa Boun Guèye ña bañ ca àgga mooy waxa tubaab dafa jot te suñ paay amoon na fuñ toll woon ci làkki tubaab ak yooyu moo taxoon civilisation bi demoon na ba ba romba nag em ci lappatoo ci la suñ eh, ñaari kilifa yooyu ñu boole leen te dikk seen xam-xam ak seen tolluwaay ci biir réew mi suma pa Abdou Karim ak eh, suma pa Boun Guèye bon ñun buñ toogee te ba nekk ba ñun muslim eddat dara waruñu lu muy déggu deggu ak tenku ci degga tenku ci islam bu wax degga te diko jefe hmm ma bu ga wax ne alayum bo mo won suñ cheman fiñ tolu won ni te fogas ko mu rotu tax ko rodde man lima xam ci mom ci jamono ji digale ni fogas ko taxul ko rodde fip fip fogas du ko du ko taxa rodde mom mom njafadu wu don da fa newon te yàlla dafa defoon Aliou Mbodj nekkoon nit koo xam ne dafa dogg woon ci waxam te gis ne Banjul rek a ko saf ak islam man loolu gis naa ko ci moom waaw dem naa même Cheikh ak moom mujjantali mbiram ci mbir islam ak mu ne mu umra ak at mu ne mu umra ji diggante boromam waaw man fekk naa ko màkkab du benn du ñaar du ñett ñun gannaaw gi màkka man dafa meloon ni su jógee ba ñu dem baka waw ci man man la màkka meloon ci man soo ma fekkee biir màkka dooma usa dañ naa ne bu ko ut tooga rek léegi nga gis ko ndig béré ba xamoon naa fa tuuti waaye tey jii Banjul gii ñu ne dafa tilim tilimul gaa ñi képp ku jógee komba wala foo mun di jóge di ñëw bu utti fi dara la indi waale ngir yàlla te ba booy dellu te te jëfe ko ba pare delloo ji ko fa ko jëlee woon mbuus yeek pañe yeeg pot yeeg kees yeeg mor morsa yeeg saaku yeeg lépp loo buuboon indi waale sooy ñibbi ngera yóbbu waale ko bon léegi réew mi dëkk bi seet ba pax yi ñun suñ taam fekkee wuñ woon ñu doon tëj pax yi déedéet tëj pax yi fekkee wuñ ko woon déedéet ñun fekkuñ ko woon te musuñ koo foog ba xambalang la woon ñuy cee plé di ci aget di ci bijims ci biir pax yi aget ñuul yi lañ doon yuus ñun amee bool di ko róol bu bu taget rek nga for am nga benn bijims nag weñ la woon mhm. weñ ak per mhm. boobu mooy bijims ah. waaw ñu yooyu lañ daan foye waaw bijims mhm. ak aget ci biir pax mi boo dafa dafa laa woon rek emphasis ne pax mi dafa ba woon kom yaa ngi toog ci biir pax mi nga toog waaye ngeen di aget di bijim fek yooyu ndox amu fa woon nawet rek la pax yi am ndox tuur ndox ci biir biir pax mi yow itam ndox dafa am gis sa mbalit am na fu mu waroon a ne sa ndox mu tilim am na fu mu war a ne am na benn visitekat boo xam ne su ma ñoom maam ñeme wuñ ko woon ñëpp ko xamoon ñu ko war a yuus mister yuus <laughs> la la la la foo mooy papi daan yuus Mr Youss fi la dëkkoon primaire gi Mr Youss mukk kenn amu doon ñemeñuñ ko woon ci jamono jooju ci Banjul moo tax bi maa liggéey BCC bi ma amee BCC mu wóoroon ma ne mun naa fee liggéey lu nit gis ma ne mbalit mi lampa yi ak revenu bi ñett ñi laa ñëwaloon parce que ñeenti weer laa fay am ñu ne ma ne ñett ñi moom foog mu leer te yàlla dimbale woon na ma leeroon na te wóoroon na ma ne waa Banjul dinañ gis li maa liggéey pax mi suñ gannaaw kër ñax sax doo fa fekkoon dama ko raxas ba mu set wecc ba nga fekk pax mu ndaw mi pax mu mag mi doon bi soow tey mu leen mu leen a tee gaa ñi dañ na sax dañ na sax gis nga mbir mi amul tëgg a denaa déedéet lu waaye mu ne te rek nañ ko ko jox rek mu def ko rek jaama am ci ñun yëpp jërëjëf alaaji tafsir Gueye eh, taalubee ngoog ku yalla yar yalla ko yar tafsir barul lum fi number eight tafsir barul lum, moy wajuram ci kelifteef am nañ kaddu ci dekk bi fi surtout jigéenam bi da wax taala géey ci adidin gi di jabari onkul Ibu Jaay tafsir eh, ta alaaji tafsir géey ci lu gatt rek 1949 lañ eh, la fi Euh, Seyd euh, kii euh, Chérif Chérif Clair Chérif ndax Taïb Chérif boobu Taïb Chérif baa ngee dëkka gis nga number two prison prison number two boor bi fi tànk bi nekka ay taax fa nekkoon fii noonu rek jëm Palm Grove mm-hmm. du ngeen tànk yi fi nekka noonu janoo prison bi nawet fettaangu foofu ay taaxa fa nekkoon sirif bi fara daan dal fara sirif bi daloon 1949 ci la fi ñu kooku jógee ak sëñ Mansour eh, waaw sëñ Mansour eh, ñu ci lañ fàttaliku li ma fàttaliku eh, Birahim Birahim Mbuub ak Oustaz Tafsir foo naa ñoo fi jël loolu lañ fi jële woon ci ay xaleel ci Banjul pour dem ci waawoon Alaaji Tafsir moo continué Birahim ñibbi si alaaji tafsir fa la jàngi kii dafa ñëwoon jàngi Égypte pour am kayit si nit ñi am rek waaye moom dafa ñëw ak ak sotti teem dafa jàng alquran tiwaawoon janga xam ba man mut sekk ñëw fii la ko yóbboon mu dem Égypte ak yëpp pour kayit yi la rek graduate si la ñuy def nii pour mu am ko ren di jamono ko laajoon waaye fekk na moom pare woon na ba pare dafa yóbbuwaale xam-xam bi moo dem Égypte daf ko yóbbuwaale woon kooku mooy alaaji tafsir Guèye nayib la fi te dal na ci wax te na te bu dee conférence rek kenn mënu ko fi ci Gambie conférence la wax de fii kenn mënu ko fi moom rek a mun moom li mu xam ci ni mu nekk conférence sax dafa daru ñi ànd ak moom jógee fii Gambie fi dem senegal ci benn eh, fraternité yooyu ñu daan dem xam nañ ne ba mu demee Sénégal yabuñ ko ci conférence rek alhamdulilah rabbil alamin kaar kaar yàlla na ko yàlla yërëm eh, challenge bi du pour des ci ñun ñun ñun léegi nekkatuñu papa de ñun léegi ay maam lañ parce que man alhamdulilah rabbil alamin gis naa suma sitaat yàlla suma borom may na ma ma fekki loolu eh nit bul xeeb sa dunda loo loo yow suuxaluloo ko sa boppa pour mu sax yàlla la dibale ba nga toll ni bon ñun liñ bëgg a wax mooy yéen ñi nga xam ne yéen ndaw ñooñu la yéen lay waxal waay waay góorgóorlu leen waay góorgóorlu leen de nasax yaa fuus ak yaa fuus juddu wuñ woon Banjul amul benn koñ bay dem ñu ne fi lay kër yaa kër yaa fuus ki lay fi lay kër nasax amut kër papa doye di amut parce que fii kilifteef daf fi nekkoon ba pare mbokk na fi ñu ko suuxat di jàppalante jàppalante leen waaye ngeen dimbalante waaye lima ma wax ci jàppalante ba dimbalante bi yëpp nag eh, moo di ñu góorgóorlu de ataaya ji baax na waaw ataaya ji baax na waa ataaya ji dañ ko abuse de ataaya ji jàngaluñ tax duñ xale dara lu mooy xaaraan xaaraan lañ leen la leen jàngal waaw nga dem ñu këmal fii nga dem ñu këmal fii nga dem ñu këmal yow doo ataaya di naan ataay jàmbur yi rek ci poti jàmbur yi bañ nañ ko ba wane ne ataaya ku siite ko moom ñaari kaas téeméeri nit waruñu am ñaari kaas loolu war naa la wane ataaya ku siise ko moom naar bi indi ataaya fii tax ñu naan ataaya naar yi <laughs> ñaari kaas la ku rek ñu nu teg jeex na waaye ñun fii ci nga indu suba begoon ñu ngi ci rek Massi Mbaye Thiaw moo di wóor rek fu ñoo ataaya rek xaaraan ataaya rek dafa tax ñu nit ñi gaañi tayal tayal googu dafa tax seen xel yi neex xam nga li olo di neex neex bu guma use tuwa bi ne cupit déedéet da nga dafa neex ñu ne diw dafa neex mun xamu dara mun da jàng mun da grâce dara dafa neex ku ku gàtt xel la dafa tax be xalé yi lu wuñ e gor lo fi musane ñun xamuñ won xaraana be pare xamuñ won togandou déedéet ñun xamuñ woon añaan xamuñ woon loolu xamuñ woon siis xamuñ woon nasax xamuñ woon loolu ñun dañ dem school wàññeeku si waat di dem daara lum tuuti tuuti tuuti xam nga tuuti ci daara lum tuuti tuuti rek yàlla may na la nga xam tuuti ci daara xam tuuti ci anga ci tubaab loolu sant yàlla la jafe na ci suñ maas léegi ci li ma gis xale yi jóg léegi jafe na lool ku ci jàng tubaab ba ñor mun a nekk et directo am alquran ba mun a nekk iliman jafe na fi léegi jafe na fi dara waralu ko lu mooy nasax ak doyadi nañ ci jóg xale yi nañ góorgóorlu nañ bàyyi seen xel réew mi kenn du leen ko liggéeyal ñoo ko war liggéeyal seen boppa réew moo fi naw ay doomam a liggéey réew moo fi laaw naw rek ay seen doom yee ko liggéey bon lan moo war a tax suñu doom yi du liggéey suñu réew ñun dañ war a liggéey rafet néeg waaw waaye rafet kenn ci gën de waaw rafet néeg <laughs> rafet kenn ker gu rafet bàyyil sa xel liggéey bu liggéey ëllëg kër gi gën a sori mooy bàmmeel soo mun da jagal kër googule billahi gisuma la booba moom jóg amul te tëdd ba dafa yàgga rafet kër ba pare bon jikko bu sa suulee nga fekk fa moo mawti fekk fa suñu borom bi dina am num dafa yow li gën mooy nañ góorgóorlu fen nañ ko moytu fen fenan fen dafa ñaaw ba pare añaan bon fen ak añaan ay mbokka bon la def doo am xarit te ku ñëw baaxut yow rek a baax kan kañ lañ nga am ku baax boo mu ne xaaraan benn may la ngay fen di boole nit ñi di fen xarite nit ñi doon naa fekk nuunu du yóbbu àdduna xale bu ko bëgg a dëkkee di nga sonna parce que doo jëriñ kenn te doo gën kenn nañ góorgóorlu liggéey réew mi ku ci nekk ci gëm ne war nga fee liggéey luñ la boolee ci tur yi nañ góorgóorlu ku nekk ci ñun góorgóorlu ba nga xam ne di nga fi jur loo xam ne su ëllëgee dinañ la tuddaale loolu moo gën de su ma baaya fi gën waaye góorgóorlu waaye bi gën fi waaye yaa sa baay gën tolloo demaguloo fenn da nga war a sa baay. bo mu da romba sa baay be romba njëriñ la amatu lo njëriñ baxulo rombal sa baay ci mun romba ko ci mbax romba ko ci doylu romba ko ci dal romba ko ci taranga romba ko ci sa digante ak yalla sa baay lol la buga sa baay bu nga imam mom dafa buga nga romba ko ci yoyu romba ko ci lu bax daf ko buga waw mun nga don nak tubéy jaak mbuba ma khalis ba do na barke barke do ko doon na bi khiyam barke da nga koo liggéeyee maa la wax loolu Ablaye na xale yi góorgóorlu man suma laas woot mooy na xale yi góorgóorlu jàpp seen jàmbur doylu seet ne seen digga digganteeg yàlla soriwul de ba pare seen digganteeg ak taalibe yi soriwul seen digganteeg élimaan yu jàppale leen te élimaan yi di jàppalante ñoom tuuti tuuti di ci ut xam-xam di ci ut taranga di jàppalante jàkka yee kër yee nekki na bu demee bu soobee yàlla yàlla dañu yërëm ci sa jëf la la yalla yërëmé sa la toroxal waye sa jëfalaa rawal it na xalé yi gorlu nañ ut teraanga sa digënté seen waajur yi déglu leen doom ju saga ndeyam du raw dom ju saga bayam du raw té lolo nge am ci jamono barka démba rek nit ñëw na ci man complètement dom yu ko songa di door ñaawna xalé buñ def lolu xalé bu ko def torox do raw sa morom mukk nañ góor góor lu ñu sàmm wante suñu diggante ak luwaa yi lu luwaa bi ne déet bàyyil lu luwaa bi ne waaw defal li lu luwaa bi ne déet nga def ko danga nga ñàkk a jom la ca téyee doo ci jëlee dara lu mooy torox waxtu wu nit waxatee yow te te lem la wax dégga ca war wax ko dégga bu seet dërëm bam laa jox wax ko ko kooku laa musal ki laa jay daf laa lor ki laa wax dégg moo laa dimbale nañ déggu te tënku ci dégga yàlla jégal ñu sàmm ñu sutura ñu wutu ñu aar ñu Yana yalla teggi jàngoro ji la ci yala yalla nako fi yalla dindi jobot yalla barke yalla na yalla sutura ci bir ak biti yeb xale yi ci biti di gor gor yalla na yalla wuttu yalla buñ murti yalla buñ yàqu yalla bu yakule ñu ngi leen di di leen santa ne television bi ñun xam nañ ne xamuñ mënuñ lu bari waaye gannaaw ya-, yaakar ngeen ñu ci lu tuti li xam te mën ko ñu wax leen ko ñu lu be ngir yalla ngeen fexé be mu doon ci doomi adamay करने को जरूरी